page de eSport TV l'actualité en continu gars actualité bi ne gars ñu fas Cristiano Ronaldo bi nga xam porter plainte à Juventus de Turin le moko waral mais aussi le match du Real Madrid Casablanca le Real qui fait le plein par rapport à euh, ndam yi nga a ak jogante yi mu joué yëpp ba yëpp ay ndam la ci AS Douanes encore une fois deuxième année consécutive ñu nekkaat euh, champion du Sénégal dans les deux Jeanne de Dakar un hein. match qui on a aussi match bu neexoon la donc là, euh, donc l'AS Douanes mooy représentant waat li nga donc Sénégal ci bool bi ah ki xam ne nag mooy donc euh, Gal Christophe Galtier nee na nag ah donc gars yi moom euh, mun nañ ko wax lu nekk mais moom daal du raciste ah donc moo tax daal kàddu yi nga xam te ne ko si ndoddam ñaawul na ko lool lool lool mais moom daal du raciste loolu daal la xam le euh, ki nga xam ne aussi nag gars yi mooy tamit Eric tan Hag Eric Ten Hag aussi moom jamono ji gars euh, voilà dañ koy tek pression par rapport aux résultats et tout mom nak nee na comprendre na mais dal mi ngi fexé ba euh, def lu mu mën mom daal pression pression joueur yépp le ci kawam lako ko daal di teg ngir baye joueur am ñu daal di euh, gën a concentré wu indi ko ay ndam ki nga xamné nak nag mooy donc Pep Guardiola mom nee na Kay Walker papam ak yaayam dal dañ ko jox ay jeunes yo xamné mom rek moko ko di am té lool moy tax muy gëna intelligent di gëna a jouer ci football bi hein donc ñaan ñi ñoy donc papam ak yaayam ñoo nek ni bu Kyle Walker Renato Sanchez première victoire avec l'AS Rome ah ah tey ñu ñoo dóor door yu metti ah lañ dóor seen adversaire ah dóor yu metti metti metti metti métti bii taw na et dans 76 26 ans moom dugal premier bi on espère ne gaañu gañu yi du ko solo ndax mom daaw moo ak daw jege Paris Saint-Germain gañu gañu mo tax joué presque dara Cristiano Ronaldo dafa la di porter plainte ñi nga xam mooy donc ñi di wa Juventus de Turin liko waral nak moy que ne ba euh, mbass mi amé won ci année 2020 2021 yi mom dal dañ ko ameloon

leen jox victoire bu am euh, solo loolu ki nga xam ne mooy Jude Bellingham nag moom la ñu tabb mu nekk joueur du mois d'août euh, fa nga mooy donc euh, de saison ñi nga xam ne nag mooy donc waa Real lañ leen a teel a mëne ki nga xam ne nag mooy donc Valverde daal dugal xët gu yéeme la daal dugal comme ni koy defee rek daal égaliser Valverde moom saa yu waa Real jaxee rek ngeen daal koy gis ah. donc moom bokk na ci homme fort yu Casablanca yi moo tax daal génne ko ci

waxam euh, jamono ji dal daf mel dal daal fi ne euh, poste numéro 2 lay daal di euh, yor ki nga xam aussi na gars yi moom donc ki di Kepa mi may tooñ naan ko Kepa keppul te encaissé na ben mais il a fait un bon match hein Kepa def na match bu baax de ah. donc moo ngoog ñu koy féliciter ah di wax Real aussi nañu nekk équipe même dynamique bi Real Barça nag gars yi seen derby bi bu leen ko fàtte wax naa na ko ci weeru octobre la euh, classico bu nar neex na bu ñëpp daal di xaar pour l'instant moom Real moom mi ngi enchaîné euh, victoire yi moom di ko di ko tegale ah et Kepa aujourd'hui également moom lañ ko abalé aussi ah. mais mi ngi remplacé Courtois en attendant gardien belge bi daal di euh, dellu si ki nga xam ne aussi nag moom mooy donc Kubo ah moom ñu fa jëndoon ko Real moo ko jëndoon ah Real moo ko jëndoon moom nekke xale fa lañ ko formé presque comme Odegaard li leen dal rek ñu bàyyi ko Espagne di ko aale club yu bëri ah, ay Mallorca et tout finalement nag mu daal di am club bo xam ne def na confiance am mu nekk fa titulaire di enchaîner but ñi nga xam ne nag gars yi nag euh, moom mooy donc li ñoo kon information ñu leen bëggoon jox hein, c'est toujours un plaisir de vous servir ah hein, den wax way leen di like way leen abonné bu leen faté bës ci cloche notification bi ngir jot information en exclusivité dem leen bës ci lien boobu ma épinglé ko ci commentaire ak aussi description bi dem sétane vidéo bi ñu def ci ki nga xam ne Xabi Alonso yeneen vidéo mi ngi ñëw suba inshallah allah rabi ñu gën ko yaatal su baaxee ci la suba na suñu la gars ja ngeen jëf.